Mboka. Gàmbi lañ jógee. ñamala kaay. ñamala ne ngay taxaw. waa ñamala. ñamala ci loo maa ngi nii rek. yow la bokk ak Balla. ah Balla sama grand rek la. ñu dëkk bokk dëkk si koñ bi rek. waaw loolu kase la. Euh, école ba nga nekk wala école de Balla Gaye wala. maa ngi nekk école de golf gaynde golf gaynde laa nekk. bi mooy sa ñaar yegg na yaangi eh, yaangi ay eh, combat. ah ma ci deux combats deux victoires. Mhm. lan moo tax nga choisir ñamal tuddé ko sa bop ñamal bi sama sama ñaar grand frère ñomako ñomako tuddé rek ku ci mel zan ak ak kay Bejo ñom ñoo xol bam neer dal daal ma koy tuddee loolu kese la. tuddé ma ñamala ñamala nekku maa ko jox sama bopp mi ka jox quoi loolu dong la waa incha allah. ok léegi Balla day bëri tay ak Tapha lo gis. Balla Balla Balla lu combat wala loolu li du combat sa Balla Gaye bo bu deful nang sa dañ koy tawate dañ koy doomu daanu de inshallah allah boy deful nang dañ koy doomu mu daanu. dóor mu wàcc. mu wàcc ne këlëb si suuf. ñamala li ngay wax graw na de. bu baaxa baax déggoo lu ma la wax na Tapha Tine du dara. tay tay déggoo lu ma bu ñu paquet mbiski du yey ben tay tay tay tay ji bu tegon buñ tegon paquet mbiski buñ ko dajje du yey ben la la wax lepp Balla Gaye koy ñama la ya wax li ma wax li man ñama la parce que borom ndel bi. cey la borom ndel bi ndel ba leer na nañ ñama la la ilaha illallah ñama la ngok niru nga ñama la de ya yey ya, na ñama la la tudde sama bop ay gune la nag bu mag bu liggéey day am doole de njool rek doole la. gàttul ni ah bu ñu indi lépp añ ñu añ de. ah waaw yàqu ci daara de bu ko defee it ñu ñu xéwlu de. ndax wax daa mi teelaas xale bi dañ jamal la tudde boppam.